Ndongo Sarr ñu ngi lay nuyu. maa ngi lay fay. yow yaay secretaire général bu CUSEMS Ndongo Sarr lu ñu war a waxtaanee bokk na ci décision yu bari yi nga xam ni itam waxtaanee na ko président de la république ca conseil des ministres euh, li jëm ci euh, wàllum changement systémique ci li jëm ci wàllum éducation ponk yu bari dëxëñ nañ ko euh, enseignants yi naka la ñu war a mën a adapté ci li nga xam ne itam moo jëm ci contexte bi ñu nekk ak li nga xam ni tey bëgg nañ ko anglais door ko ci li nga xam ne moo jëm ci école élémentaire ñu ngi wax itam langue nationale itam xool nees mën a def ngir boole leen ci li nga xam ne moo jëm ci programme bi ci volonté yooyu nga xam ni président de la république euh, jukki na ko lan nga ci mën a tontu. waaw euh, li ma ci mën a tontu moom mooy que xam naa président de la république ki ko doon xel ku xam lu xew ci système bi la ndax nag bare na mesure yoo xam ni annoncé na ko ci conseil de ministres dem dafa nekk ay mesures yoo xam ni dafay ñëw. indi tontu ci loo xam ne lii en fait ñun suñu bopp yàgg nañu que réclamer ñëpp xam nañ ni système éducatif bi nii tey fi tey dafa sooxe li tubaab di wax un grand corps malade un grand corps malade nag soo ko bëggee faj da ngay indi thérapie de choc et je crois que am na ay mesures yu hardi yu ñu yoo xam ni su dee euh, jëmal nañ ko. lu bari ci problème yooyu nga xam ne moom la ñu jànkonteel ñu ko mën a rek mhm. parce que président de la république wax na ni problème financement bi d' abord financement bi nit ñi dañuy wax très souvent nii budget bi nga xam ne moom la ñu consacré si njàng meeg njàngale bi mooy budget bi gën a rëy naam moo gën a rëy mais budget boobu su ñu bëggee xayma euh, njariñam dañuy dem ci école yi ñu xool negam lépp lu war a ñoŋ ci école yi ñoŋ na wala déet or suñu demee ci terrain bi dañuy gis ni euh, daara yi ñuy jànge doyul dañuy gis ni jàngalekat yi doyul jumtuwaay yi war a am ci école yi doyul donc loolu lu muy wane moom mooy que budget bi même su dee ñu bare mën nañu yaakaar ni dafa bare daanaka budget la boo xam ni day permettre simplement ñu fay salaire te ñëpp xam nañ ni jàngalekat yi doyul cela veut dire que su doon jàngalekat yi doy nañu lii nga xam ni moom la ñuy consacré ci budget sax bu boobaa du mën a faj salaire aujourd'hui soo xoolee li ñuy jël di ko di ko di ko jagleel investissement daanaka ci ay dix pour cent la toll loolu nag ñëpp xam nañ ni loolu lu néew la donc école boobu il faudrait que vraiment la question du financement ñu réfléchir ci ba pare trouver des moyens alternatifs yu ñu permettre lépp lu war a ñoŋ ci école yi mu ñoŋ président yi itam nee na il faudrait que ñu xoolaat programme yi ñëpp xam nañ ne école bi euh, ñi muy former ñu ciy génn très souvent euh, du ñu mel exactement ni nga xam ne noonu la bëggoon parce que école bi leen di former du école boo xam ni daf ñu niru du école boo xam ni bii dafa intégrer suñu ay valeur de culture et de civilisation loolu nag dafa jot. Mmh ñu tëggaat ko ba képp koo xam ne kii da ci ciy génnati mu nekk koo xam ne kii da ngay da ngay ancré ci sa ay valeur ci sa ay croyance ba pare nag ubbeeku ci lépp loo xam ne lii dañ koy jële bitim réew muy lu jëm ci wàllu xarale muy lu jëm ci wàllu science lu lu jëm ci wàllu technologie lu jëm ci wàllu intelligence donc artificielle ñëpp seetlu nañu ni itam école bi mais euh, numérique bi ni mu ci duggee des na or soo xoolee secteur yëpp nag dans la vie dañu gis ni euh, numérique bi mi ngi koy dugg ak doole ak gaawaay boo xam ni gaawaay bu extraordinaire loolu nag système éducatif bi warul des ginnaaw donc il faut que écosystème bi ñu mettre numérique du système éducatif ñu mettre ko à jour pour que mu indi benn plus-value ci njàng mi donc ak ci njàngale. Mhm. ñu delloo ci également les langues nationales. oui je crois que loolu également luy indi plus-value la. man mii wax ak yéen def naa expérience bi ma nekkee ci biir classe bi jàngale bare na loo xam ni dama doon dama expliquer sama ay élèves si tubaab. Hmm. ñu am ay difficulté pour comprendre su ma ko jaaree ci langue nationale bi dañ koy daal di comprendre te am na ay expérience yoo xam ni dans l'élémentaire def nañ ko ñu wane mi utilisation langue nationale yi mën na tax suñu élèves yi performer ci ay disciplines yu mel na ay ay mathématiques wala les sciences donc d'une manière. donc général donc daal su ma xaymaa en fait nga xam ni moom la ñu tënk ci communiqué bi bare na ay mesures yoo xam ni ñun ñoo ngi koy saluer yoo xam ni yaakaar nañ ni su dee jëmmal nañ ko très rapidement dina am jeexital bu baax ci suñu système éducatif. waaw maintenant nag ñoo ngi xaar parce que ñun ay ay ay ay annonce ñu rek du ñu tax en fait. yàgg ngeen ko dégg. <laughs> waaw yàgg nañ koo dégg léegi ñoo ngi xaar li ñu wax ñu jëmmal ko. eh bu boobaa ñun de toute façon lépp loo xam ni taxawaay la buñ ci war a am daañ ci am loolu xam nañ ni njariñu système bi la njariñu réew waa jëmbal ko itam euh, da ci bokk boole si ñëpp ñi nga xam ne ñoo ci war a bokk bañ ci beddi kenn waaw mais absolument absolument xam nga mbir moom soo koy def mais ña ña nga koy def acteurs yi nga xam ni ñoom ñoo gën a maîtriser mbir moom da leen war a associer je crois que kenn ku am na loo xam ni jàng na ko maîtriser na ko loo xam ni su ko indee ñu ñu dajale loolu yëpp yaakaar naa intérêt général rek moom moo ci moom moo ciy gëj. Mhm. wax nañ itam ci li jëm ci wàllum déperdition euh, ci li jëm scolaire euh, manque infrastructure yi wax nañ ko euh, déjà lan nga nu mën a wax ci wàllu wi ni mel. waaw mais déperdition bi li ko li ko indi lenn ci loolu moom mooy li ma fi rappelé yëpp xam nga école boo xam ni. Euh, bërëb yi ñuy jànge doyul fois condition yu ñuy jànge ay abri provisoire soo demee amul table banc euh, outil didactique yi ñu war a soxla amatul école yu bare soo fa demee amul bibliothèque amul euh, salle informatique ainsi de et cetera école yooyu soo fa soo soo demee jàngalekat yu doyul ba tax classe yi day am ay effectifs yu pléthorique foo waroon def deux devoirs wala trois mënatoo ko def ndax effectif yu yu yu plé pléthorique yooyu yooyu yëpp moom moo indi déperdition mhm. scolaire boobu ngay boobu ngay wax donc pour ñu lutter contre la déperdition scolaire loolu il faut ñu régler ko mhm. mais dafa am beneen aspect mhm. beneen aspect bi mooy bare na ñoo xam ni ci déperdition scolaire boobu la ñuy bokk da ngay gis ñoo xam ni dañuy bàyyi jàng mais suñu bàyyi jàng dañuy dem dugg ci atelier mécanicien wala ñu dem dugg ci atelier menuisier wala ñu dem ci atelier kuy defar ay climatisation wala affaire nga xam mais dañuy gis rapidement ñu am ci xarañ boo xam ne bi kenn du xam lu mu toll c'est-à-dire que ñooñu su doon am ñu système boo xam ni au lieu ñu leen di force ñoom ñëpp ñu def enseignement général mën nañu dès la sixième ñu commencé leen initier enseignement technique et formation professionnelle à partir de la ñu dem carrément vers des bacs ñooñu mënoon nañu leen former formation boo xam ne mooy gën a ñoŋ formation bi nga xam ne dañ leen koy defal ci atelier yooyu te bu boobaa daañu am ay ouvriers qualifiés yoo xam ni réew mi moom moo ciy profité loolooy benn ba pare deuxièmement dañuy nekk ñoo xam ni su ñu amee seen diplôme du ñu toog di croiser leen bras di xaar état bi jox leen liggéey bu boobaa état bi su aménager les le cadre encourager leen euh, financer leen kenn ku nekk ci ñoom daa nga mën a sa structure waxuma la yow nga régler sa problème liggéey mais bu boobaa yow sa bopp sax daa nga mën a di liggéeyloo ay nit te loolu yaakaar naa ni jeexital bu baax kese la mën a am ci suuf hmm. am na leneen li nga xam ne itam Ndongo saar urgence la bokk na ci xool réglementé li nga xam ne moo jëm ci école privée yi euh, waxtaanee nañ ko ndax danga jàpp ni loolu tey urgence la ngir ñu assainir milieu ñëpp xam nañ ni urgence la parce que ñëpp xam nañ ni euh, ubbi école privée li ñuy wax régime déclaratif da ngay bind rek après mën nga commencer et mën nga commencer di euh, tijji sa école di ko doxal ay at yu bare kenn du ñëw seet si la donc de sorte que école yooyu très souvent am na ci yoo xam ni euh, dafa am yoo xam ni yu doy waar la yu fay xew yooyu nag dans un état bu organisé bu normal je crois que dafa nekk loo xam ni war nañ ko xool ndax nag ñiy jàng ci école privée yooyu yëpp. état bi moo amoon responsabilité moom ñii parents yi fay seen impôt moom moo amoon responsabilité créer ay école recruter ay jàngalekat def bépp jumtuwaay bu war pour que ñu man leen tàggat jàngale leen maintenant comme moom matalewul mënu ko loolu moom moo tax mu koy mu koy délégué maintenant loolu nag ñi nga xam ni daf leen koy délégué mais warul leen ko délégué rek toog leen seetaan kenn ku leen di def lu la neex donc loolu dañ ko war a encadrer def de sorte que euh, structure bu ñuy tijji mu respecter règles yi nekk on normes ba pare lépp loo xam ne dañ koy imposer donc ci système bi eh bien mu nekk loo xam koy warloo ba pare di kat loolu yaakaar naa ni lu ñu war a def le plus rapidement possible. oui Ndongo Sarr lan mooy situation jàngalekat yi même bu fekkee ni revendication mënta ñàkk ci ñi nga xam ne ñoo di sa euh, sendika yi euh, tey mbir mi fan la toll ndaxam mi ngi bouger. waaw bon fi mu nekk nii daal euh, su dee mi ngi bouger bu bu bu yem la aujourd'hui il est vrai que signé nañu ay protocole d'accord yoo xam ni am na ci ay points yoo xam ni wéyal nañ ko matérialiser nañ ko mais bari na ay poñ yu important question bu mel na question décisionnaire mhm. loolu dafa nekk benn question bu tar boo xam ni rapidement war nañ ci trouver solution question bu mel na la question euh, de la formation parce que dafa bari ñoo xam ne ñii en fait bi ñuy dugg mais jaaruñu ci école de formation ba am seen diplôme professionnel. Mhm. quand bien même après am na si ñu formé mais dañuy am problème pour dugg ci fonction publique parce que lenteur administrative yi moom moo tax. yooyu nag dafa nekk yoo xam ni vraiment il faut ñu régler ko benn yoon pour tous te loolu régler ko mi ngi commencé si ñu bàyyi di dugal ci système bi nit te jaarul ci école de formation ba am diplôme professionnel ñu dugal ko directement loolu il faut vraiment ñu régler ko heureusement. Mhm. autorités yi bi ñuy présenter seen programme nee nañu ñoom désormais waxuma ci njàngale ni mais dañuy administration ci boppam kenn dootu ci dugg te jaarul ci concours dem école de formation ñu formé loolu suñ ko defee dina indi vraiment solution et dina permettre robinet bi nga xam ni moo doon alimentation formation bi question lenteur administrative yi ay problème mu rappel yi ñu devoir aux enseignants yi woon bu boobaa yooyu yëpp mën na permettre donc ñu régler ko je crois que autorités yi ay solution yu structurelles comme ça solution yooyu la ñu war a wut plutôt ñu nekk en fait dans des solutions conjoncturelles yoo xam ni loo régler tey su subaa ñu posé waat comme problème nga nekk di ko di ko di ko gérer ñu ngi lay sant di la gërëm bu baax a baax Ndongo Sarr maa ngi lay euh, di fàttali ni yow yaay secretaire général bu CUSEMS ok merci beaucoup ok merci beaucoup